su ñu àndee amee juboo ñu mën a signe ay contrat yoo xamee ne pomme de terre Sénégal bi nga xamee ne benn pomme de terre gënu ko n'est-ce mën a jóge ci baykat bi egg ba ci commerçant bi mu mën ko distribuer ñu jaay ko ku ci nekk gis sa bopp parce que li ñu seetlu ci mbay Sénégal mooy njëg yi ñuy ja déclaré bari na ci njëg yooyu yépp soo jëlee ci soble soo jëlee ci pomme de terre du njëg yooyu la baykat bi jaay ñu ne loolu dañ ko war a soppi soppi ba nga xamee ne ñi moom seen alal ñoom suñ ko jaayee tamit ñu di ci ñu di ci gis seen bopp suñu jàngatee ni produit bi dox am na lu bari lu ci lu ci jaar suñu seetee ci ne investissement bi presque lépp baykat bi moo ko yor 85 pour cent investissement production bi baykat bi moo ko yor mais suñu seddee si séddalee ngañee gi baykat bi moo ci gën a néewle loolu lañu ñu bëgg a dokk dog ko ba nga xamee ne baykat bi tamit mën a gis boppam comme ni commerçant bi di gisee boppam ñu ne loolu pour def ko nañu dajale ñi nga xamee ne ñoo seq pomme de terre bi mu di baykat bi mu di commerçant bi koy distribuer ak tamit kuréel yi nga xame ne ñoom ñoo yore xaalis di abale ngir ñoo ñëpp suñu toogee waxtaan ku ci nekk man gis sa bopp wàllu woowu ni ko Paden jàppale Paden ci jàppale bi teg na ay ponk yu bëri ay jumtukaay yu bëri yoo xam ne alors ci baykat yi la jëm baykat pomme de terre bi ci njëkk mooy jàppale kuréelu baykat bu ci bëgg jënd sa pomme de terre membre ñu mën la jàppale ak banque yi nga xam ne Paden mi ngi ànd ak ñoom signé na convention ñu mën la lebal ba lu tollu juróom fukki million nga mën a jënd sa production membre ah seet ba njëgu marché neex wala gis commerçant bu la mën a fay njëg goo xam ne ah tekki na sa ñaq bi nga def si si production bi pour nga jaay ko ci njëg gu njëg gu bakkane alors ngi dul njëg goo xam ne du euh, fay euh, doole ji ci baykat bi ñaq ñaq gi nga xam ne baykat def na donc loolu bokk na ci jàppale yi nga xam ne Paden teg na ko Paden tamit teg beneen jàppale moo di jàppale baykat bi ba saak yee ñuy def pomme de terre boobu mu mucc ci ayib parce que suñ ko seetloo mbayu noor bi mbayu euh, diwaanu ñaay bi yépp dañuy jël sol ko ci ay saaku ba saaku bi dara dootu ci xaj noonu ñu koy solee day bëri ay perte su dee ne soble noonu lañ koy def su dee ne pomme de terre noonu la alors que cahier de charge bi ñu signé dañu ne pomme de terre ci saagu ñaar fukki kilo ak juróom la war a mën a nekk soble ci loolu lay nekk jëm ci yeneen conditionnement yu gën a suufee mais jël saag def ci juróom fukki kilo juróom benn fukki kilo loolu day leen produit balaa mu egg ci ka koy jëfandikoo produit bi sonn donc Padentec boobu jàppale tamit nga xame ne ci ñaar fukk bu ci nekk quatre-vingt-dix pour cent yi Paden moo koy fay ñu def ko